Euh, même bu même bu ñu bokk ak moom bu ñu bokkee moom direct. Hmm. indirectement tamit dañu war a ñëw teewal ko jëmal bësam. parce que c'est une diva te def na lu ne Sénégal moo tax daal fu mu fu mu mënti nekk dañ ko fay fekk. est-ce que am nga yaakaar ci retour am parce que am na ñu naan ba léegi voix bi ñëwagul ni mu war a ah, ñëwee. loolu nag moom doy na waar. loolu moom xam surprise la ci kanam tuuti dinañ ko xam. ñu xam ko mhm. d'accord gis nga ànd ak aussi Mia. Eh, ñoom ñaar ñooy jëlante. waaw loolu laa bëggoon parce que dama bëggoon laaj loolu. mais sama rakk la. da nga koy jël. dama koy jël <laughs> sama la sama sœur. non doo ko laaj da nga koy jël da ngay génn parce que Mia dégg nañ mu wax que ni moom loon continue yow la kon wala. tax ngeen a mën a sos te mën wax ju ñaaw. <laughs> bu leen madame Mbaye jàppee <laughs> bu leen madame madame Mbaye gis ngeen ñi bu leen jàppee rek tànn tànnal leen. loolu ko ak moom. sama sista la. léegi la moo tax nga ànd moom tournée nationale. waaw dafa nekk système boo xam ne dafa nangoo liggéey nangoo daan doole te tarkalla macha allah li muy def da koo mën mu wool ñu nag ci ci ci lu mel noon te tey ñun tamit ñu samp suñu empreinte samp suñu ndënd bokk ci tarkalla macha allah ñoo ñoo xañ télé yi nelaw ñu am visibilité mu woo ñu ci tournée ñu ànd ceeg moom ba yéen ñëpp gis ngeen ni mu demee loolu rek la amul leneen. critique yi ñu ko doon nit ñi di wax que ni Mia dafa changé léegi day sol colin yu xaw doy waar yow mi àndoon ak moom naka la doon dundee critique yooyu moom. non critique moom mënta ñàkk Sénégal kër gu mag la te kër gu mag moom bu fa bër mu ndaw feeñee foog mu coow c'est très normal ñu critiquer ko mais loolu du dara. na hmm. sa na na you know ni ma ko wax rek dëgg la sa bopp rek that's it. mais saa yi Koura Macky vidéo mu ngi ñëwaat. <laughs> du ma ci kaa. Kumba dafa nekk référence ba mu fi nekkee ba léegi deful lu ñaaw waxul lu ñaaw kenn mësu koo dégg ci scandale mu garder personnalité am garder dignité am ba tey tey tey booy wax Sénégal musique sénégalaise ah bokk na tamit ñi nga xam ne mën nañ teg seen tànk am nañ fi wu rafet tarkalla macha allah surtout loolu marqué na ma ci moom. mais tey ban wayam moo la gën a male yoo male yoo yoo male yoo. en tant qu'activiste euh, Ousmane Sonko war a wuy di la ni incha allah jàpp nga ni dina bokk wala du bokk wala war nañ ko jëli wala waruñ ko jëli. aywa damaa bëgg a dugal. dina bokk wala du bokk d'après yow. parce que dafa war a bokk. dafa war a bokk dafa war a bokk dina bokk fii ñëpp a war a bokk. ñi jël xaalis si réew mi. ay xam nga lan la bu ma tàmbalee du ma arrêté bàyyi leen bàyyi leen nañ wax ci Coumba Gawlo tey bés. warul bokk. parce que 2011 ñun ñoo à quelques kilomètres Daniel Brottier ñun ñoo ko xeexoon ba Mamadou Diop dee ci on avait des frères qui ont perdu leur vie à cause du troisième mandat donc il n'a pas ce droit bu ñuy fayee tey lii ñun ñoo politiciens yi sont ci biir salle bi di wax les euh, dañuy euh, alerter les opinions internationales ñun les jeunes nous sommes sur le terrain Dans les xeex bi ci terrain bi lañ koy def tey moom waruñu fayee lii nigga gotta go and he must go mais le ah, ah. dafa war a wuyu ji quand même. incha rabbi euh, incha yàlla yàlla daal baax na mais nañ wax ci Coumba Gawlo rek. li ngay wax nii nii est ce que nga ni mën nga am impact bu a delloo. wala est ce que tu reçois Sonko ba léegi. sénégalaise Sonko daf ñu fekk ci guerre bi daf ñoo fekk 2011 ñun ñoo fi nekkoon 2011 ñun ñoo ko ñun ñoo ko xeex moom daf ñu fee fekk you know bàyyi nañu bàyyi ku wax li rek ñu né leneen euh, am kuñ ko momalé mom man bokuma ci ben parti faruma ci ben parti je suis avec la avec le peuple sénégalais avec la population sénégalaise li jeunesse bi di dund ñun lool lañuy ñuy alerter mais ñu kenn andu ànduñoo kenn 2011 ñun ñoko xéxon xeexoon et que ce président n'a pas le droit mu ñuy mu ñu lim ñu tegoon mu ñu koy tégat ah am na yenn débat ce sont des politiciens am na yenn débat yoo xam ne du ma ci japp yow. Xawma ci dara. xaw ma ci dara. mais sangar est-ce que am nga contact ak Ousmane Sonko. parce que ni ñu koy défendre ni wala patriote yi est-ce que ñu ngi yaa ngi déggante ak ñoom. Awma contact ak kenn man limay may def defuma pour am contact ak ma Samba wala defuma ko pour am contact ak ma Demba. je le fais parce que je suis un Sénégalais je suis un Africain et que j'ai le droit de le faire. mais buñ la woyé pour nga encaisser do ñew. encaisser lu may encaisser man ba tedd ñom tay tedd ñu. Sénégal titre foncier la fi am. c'est que du lépp lañ mën a wax rek yàlla baaxee ma ma nekk ko xam ne damay ndamu di jaayu mais bu ma ko doon def tey tey man ba may ba may ba may dawal oto ministre tey dawaluñu oto yeah pour terminer coowu coowu coowu ngor bi ban xalaat nga ci am pour prévenir que guérir un man je préfère je je préfère que vaincre tey lépp guerre mondiale sax ci table la mujjee tey ba ñu xamee ni tey il va falloir que ñu rey ci ay nit moo tax ñu mën a toog waxtaan adduna du du lépp mooy doole. boo jiitee ay ni da ngay mën a masla ak ñoom waxtaan ak ñoom surtout say njaboot fii koo fi rey sa mbokk nga rey you know mais lépp du doole yesaay ma nga fa ah, la ñëw Sénégal dina ñëw bientôt incha allah <laughs> thank you thank you guys thank you thank you ah. ay waay ay waay su ma ngeen